yaa xayra dayfin ataa bil bushri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bushri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa wasalaamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen jox seen wàccuwaay di ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu barkeel yëngutu yi ci jataay bi ak mboolem jataay yi mel ni moom jataay yi nga xam ne dañ ci laabirante ak di ci fàttalante ci wàlluk diine ak ci wàlluk àddina tey jii nag jataay bi nga xam ne daa daaira muqaddamatul xidma moom la fas yéene amal ak mbokki jullit yi mooy jataayu gàggantiku di ay laaj yoo xam ne mu ngi jóge ci ñi diglu waxtaan yi ak di ko topp ñu tànn kenn ci gëstu gëstukat yi tey jii nag ñu ànd ak Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud te miin nañ ko ci jataay bi ci ay ubbee yoo xam ne def na ko fi yu am solo yu leer te tege ci xam-xam lool ñu ngi ñaan sunu boroom mu dëgëral ko te kattanal ko kon ñu bàyyi ko mu nuyoo su nuyoo ba noppi ñu door a tàmbali liggéey bi bismillahi alhamdulillahi wa wa salaamun ala ibaadihi alladina assalaamu aleykum wa rahmatullahi noo ngi nuyu bokk yi yépp di siyaare ñépp di nuyu di siyaare it képp ku ànd ak nun jotaay bi ak fu mu mën di nekk di ñaan yàlla defal nu jàppandal ba li nu fi wax doon lu jub te am njariñ defal nul jàppandalit ba lu am njariñ ci wax ji nu jariñoo ko sëriñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhouna ci nuyu bu am solo bi kon ñu tàmbalee ci laaj bu njëkk bi fii moom day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne dafa bàyyi ab sujjóot ci rakka bu njëkk bi ci julli koo xam ne julli ñeenti rakka la ba demee ba ci rakkam ñetteel bi nag mu door a fàttaliku ne moom kat bàyyi na ab sujjóot ci rakk bu njëkk bi mu ne kon nu muy def kuy julli jullig ñeenti rakka ba ca ñetteelu rakka bi mu fàttaliku ne ca rakka bu njëkk ba kat woon na ca ab ni muy def mooy rakka bu njëkk ba ba mu bàyyee ab sujjóot da koy génne ci julli gi bañ ko cee limaale kon day jàpp ne mi ngi ci ñaareelu rakka ñetteel bi mu nekk da koy jàppeem ñaareel rek daldi àggale ak julleem loolu leneen lu mënoon di doon it lu doon farata rekk koo xam ne ci biir julleem am na farata jum bàyyi te teyu ko nag teyu ko waaye ci biir julli gi fàttaliku na ne ràkka sàngamkat am na farata jum ca bàyyi woon kon ràkka boobee rek lay génn ci julli gi bañ ko cee limaaleeti bu ko defee fa tolloon kon day mel ne day delloo ginnaaw boppam benn rakk rek daal di àggale sëñ Cheikh. jërëjëf sëriñ bi kii moom de laaj mu ne ndax dagal na ci doom joo xam ne ab jullit la muy nemmeeku bàmmeelu baayam boo xam ne dafa faatu ci yahud diine yahud wala diine nasaraan walla boobu mu di ko ñaanal. bu dee ñaanal gi day moom daganut. ab jullit sañuta ñaanal ku dul jullit bu faatoo ba noppi loolu alxuraan moo ko indi ci anam gu leer nañ yàlla tere ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy ñaanal baayam bu ndaw bi abu taalib te féete woon ko fu ne féete woon ko fu ne ba mu faatoo mu di ko ñaan dana ko ah bu xasee faatu nag sañatoo koo ñaanal wax ci alquran ne yonent bi sañut loolu ab jullit benn itam sañut loolu sañuta ñaanal ku faatu te faatoo ci lu dul lislaam bu dee ñaan gi kon moom sañu ko di ko nemmiku nag nemmiku barab ba dama xamut lu muy jariñ waaye bu ca gisee njariñ <laughs> man na koo def waaye xawma nemmiku barab boo xam ne doo ko ñaanal xawma lu muy jariñ xanaa xëy na bu ca gisee njariñ moom daal loola moom dara nekku ci waaye ñaanal ko daal moom du ko sañ du du duñ ko sañ defal way jur sàkkantuma keneen kon kenn lañ ko sëñ defal ku dul ab jullit bu xasee faatu ba noppi suñu cheikh kii moom dee laaj mu ne lu jëm ci azakay juri kër yi ndax bu ñu amee ay mburtu muy ay xar yu door a juddu wala bëy yu door a juddu yu ndaw dañ leen di limaale ca azaka ci wala déet ak ban at lañu am ñu war cee génn azaka hmm, ki yor ay gàtt muy ay xar ak i bëy bu fekkee dañoo jur ndax ndax lañu jur danañ ko boole ci li ñuy xool ndax mat na ni saabam déet bu fekkee loolu ci jublu duñ ko boole ci li ñuy xool ndax mat na ni saabam déet dee su ko ci boole waaye cosaan ya la ñuy xool ndax mat nañ ni sàpp am déet muy seen yaay ya ak seen baay ya waaye buñ xasee mat ni sàpp nag yii ci juddu itam danañ leen génneel asaka moom ñaar yooyu bokkuñ duñ leen lim bu ñuy seet ndax mat ni sàpp wala déet waaye nag danañ ci génnee asaka danañ ci génne asaka ndax liy mat nisaab mooy cosaan ya la ñuy xool bu xasee mat nisaab tamat at kon la ca juddoo itam dañ cey génneewaale asaka kuy génneel asaka ay gàtt nag muy xar wala bëy bu dee ci xar la koy génne dañ naan na ko génne ci xar mu am wala mbote boog mu am wala boog bu mu ko yées maanaam daal na ko génne ci xar mu yéesul juróom-benni at kon mooy xar mu am juróom-benni at jëm kaw wala mu génne aw bëy bu am at jëm kaw kon lu mu ci génne ci yar yooyu baax na bu dee xar lay génne na am at jëm kaw na am juróom-benn weer jëm kaw bu dee bëy lay génne na am at jëm kaw sëriñ Cheikh. kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu jël lu mel ni ay dàll walla ay yére yoo xam ne am na original. moom mu dem def ci boo xam daal xëy na du àgg ci daraja original di ko jaayee nag njëg bu yées gi ñuy jaay original bi yaakaar naa loolu bëgg laaj ah ku liggéey ku liggéey ay dàll walla lu ni mel am anam gum ko liggéey mën naa am mu wutal ko aw tur sax wutal ko aw tur ba ñëpp xam tur wi ne lii dàll sàngam la walla mbubb sàngam la wala yu mel noonu keneen liggéey lu ko nuru lu ko nuru waaye nag àggut ca moom ci wàllu qualité lu njëkk la dañuy wax original lu mu jël dañuy wax ak ñu koy wax fals fals moom dëgg-dëgg bu ñuy wax fals sax mooy koo xam ne daa jublu ñu jàppe ko original ba te doonu ko bu jubloo loolu moom jaaduwut ndax loolu naxe la naxe loolu mooy di jaay dara wone wone ko num num doonut wone ko num doonut mooy bu dee dafa liggéey lu nuru marchandise sàngam muñ xam am qualité buñ ko xamee am tur buñ ko xamee moom mu liggéey leneen tudde ko tur woowa wane na loola la te doonu ko loolu moom naxe la te naxe ci am njaay nag ci la yonente bi waxe woon ne ku ñuy nax bokkul ci nun ku nu nax bokkul ci nun bu fekkee anam googu la moom jaaduwut bu fekkee nag du anam googu daa fekk daal ku liggéey dara liggéeye ko ci qualité bu kawe moom mu liggéeyaat lu ni mel liggéeye ko ci qualité bu gën a suufe waaye bi mu koy jaay waxul ne lii may jaay mooy lee waxu ko dane daal ay dàll ngi ni yu may jaaye nàngam fekk am na ku liggéey dàll yu mel noona yu ko gën a kawe qualité di ko jaayee lu ëpp loola boobaa bu fekkee dugalu ci ay nax dara nekku ci kii daal liggéey lu am qualité bu kawe moomu liggéey lu am qualité bu suufe rek di ko jaay bu fekkee dugalu ca naxe wane ne lii mooy lee bu boobaa dara nekku ci bu fekkee ka liggéey cosaan la du ca loru du ca loru bu dee lu mel ne nag daa wut aw turam mu def ci tur wu nuroog moom wala tur wu jege ku turam ba ku ko seen jàpp ne moom la kooka day naxe naxe nag baaxut ci am njaay bu ca duggee rek lu daganat te yonente bi muy wax naan ku nu nax bokkul ci noonu booba ci lu mel nii la ko waxe woon kuy jaay dara wone ko nu mu doonul dëgg-dëgg suñ Cheikh kii day laaj mu ne ndax dagan na ci góor goo xam ne Sénégal la dëkk mu dem Europe denc fa jigéen joo xam ne tamit Sénégal la dëkk mu ne waaye nag denc gi dañ koy nëbbu takk gi dañ koy nëbbu ba waa Sénégal bu ñu ko yëg dafa mel ne loolu la ñuy wax takku suuf loolu moom jarul ñu ci wax Sénégal ak Europe yooyu yëpp <laughs> moom fu mu mën di amee rek àtte bi benn la ku mu mën di amee itam moo xam moom ab sénégalais moo xam du sénégalais moo xam ki takk sénégalais la moo xam doonu ko moo xam ci réewum la nekk moo xam meneen réew la nekk li ñuy wax takku suuf daal euh, àtteem benn la benn la mooy bu fekkee dañ caa jublu rek ne takk gi daal am na ñum ko nëbbu am na ñum bëggul ñu xam ko moo xam fu ñu mën di nekk moo xam ñu mën di doon bu fekkee loolu la waaye nag sart ya ca des moom sart yay tax takk wér moom am nañ booba dara nekku ci wér na ci wàllu diine dara nekku ci li ci des nag <laughs> diggante mag ñam koy nëbb la bu demee ba feeñ <laughs> moo koy lijjanteek ñoom waaye takk ga moom wér na sart ya yi ñuy sart ci takk daal kilifa maye na ko ak can am na ca ay seere am na ca loola boo amee takk ga wér na bu fekkee dafa am ñu mu ko jubloo nëbbu bañ ñu xam ko loolu mbiram la waaye du tee takk ga wér sëriñ Cheikh. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne yenn liggéeykat yi bu ñu leen di liggéeyloo dañuy doubler facture yi su ko defee nag li ëpp ci li ñu leen war a li ñu leen waxante woon ak ñoom loolu ñu jël ko muy laaj ba xam àtteb sharia ci loolu. waaw loolu de mel na ne danay am. ku ñuy liggéeyloo moom mu dem ci ka koy jaay jumtukaay ya muy liggéeyee ya def ca liggéey ba la muy def ca liggéey ba ka koy jaay mu déggook moom mu bind ne nangam la ko ko jaaye lu ëpp lam ko ko jaaye dëgg-dëgg bu demee ca borom liggéey ba mu jox ko mu dem ca ka ko jaay moom jox ko rek lam ko ko jaaye la ca des mu téye loolu danañ ko tuddee surfacturation loolu nax la war la sàcc la ci ci waxi wolof bu sàcc ci fiq waaye sàcc la ci waxi wolof mooy jël alali jàmbur la ci lu dul coobareem jël alali jàmbur la ci lu dul coobareem lekk alali jàmbur la ci lu dul coobareem lu yàlla tere fu bare bare ci alquranul karim muy akulu amwaalun amwaalin naasi bil moom mi ko def ak ki ku ko defal ñoom ñaar ñëppee bokk bàkkaar bi mooy jaaykat bi nga xam ne bindal na ko ne jaaye naa ko lii nangam talam ko jaay yées loola jaaykat bi ko def bi ko bind ak kam ko bindal ñoom ñaar ñëpp bokk bàkkaar bi ndax dañoo dañoo jàppalante ci ak mooy te yàlla daa tere ñu jàppalante ci ak mooy dafa digle ñu jàppalante ci lu baax ak topp sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jaay diw goo xam ne day yokk kàttanu góor ci wàllu sëy dagan na kay dagan na ndax lépp lu lu lu lu jëfandikoo ko dagan jaay ko dagan na te loolu jëfandikoo ko dagan na jëfandikoo lu yokk kàttan dagan na kon jaay lu yokk kàttan dagan na la ca des nag mooy kay yokk kàttanam fan la ko jëmee loolu moom moom moo xam mbirum boppam la moom bu ko jëmee fu dagan moom teg na ca lu dagan bu ko jëmee fu daganut nag teg na ca lu daganut waaye ki ko jaay moom lim jaay sañ na koo jaay ndax luñ sañ a jëfandikoo la lu dagana jëfandikoo la sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne buñ dee jullee ab néew ma ma'muum yi mooy ñuy topp ci yilimaan ji ñoom lan lañuy ñuy wax buñ dee jullee ab néew ilimaan ji ak ki topp ci moom ñooyam ñoo bokk lu ñuy wax ñooyam lu ñuy wax du ne ilimaan day wax lii ñoom ñuy wax leneen ñooy bokk lu ñuy wax waxuñ ne ñooy bàkku baat yu ñuy wax waaye ñooy bokk ak jublu jublu gi mooy ki jiy jullee ci julli gi danañ ci sant yàlla tàgg ko ci wax lu mel ne alhamdulilahi rabbil alamin ak lu ko nuru danañ ci ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahuma salli ala muhammadin wa sallim lu ko gën a gudd danañ ci ñaanal ci faatu ñu koy jullee ñett yi ilimaan da koy def ki topp ci ginnaaw itam loolu lay def baa de ñuy wax man naa wóote ndax yëgoowuñ te ci suuf lañuy wax waaye loolu lañuy def danañ danañ sant yàlla tagg ko dana ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ñaanal kii faatu bañ koy jullee sëñ Cheikh kii moom daf ne koo xam ne dafa am ay këram di ko luye waaye ñam koy luye nag dañu fay mooy yàlla mu ne kon ndax alal jooju ñu koy fay ci luyaas bi dana dagan ci moom walla déet ginnaaw moom ab jullit la waaw bu ko xamee day bu xamee ne ñii ñoom lii fii ñuy luye ci moom dañ koo bëgg jëfandikoo ci ak mooy yàlla moo tax ñu di ko luye ci moom boobaa bu leen ko luyee dañ ko cay fay du dagan ndax luyee leen ko daganut bu boobaa luyee leen ko daganut ginnaaw luyee leen ko daganut nag lañ ko cay fay itam du lew bu fekkee xam na ko bu fekkee xam na ko bu fekkee xamu ko nag day luye rek am ku ñëw luye ginnaaw bi mu xam ne da cay def lu ak mooy yàlla ba mu ko xamee rek ca la war a jeexal ca la war a jeexal location booba ca la war a nangu béréb ba mu luye woon ba mu ko xamee la weesu taxamu koon nag loolu xamu ko waaye bi mu xasee xam nag warute wéy di ko luye te xam ne dafay def ak mooy yàlla bu dee ci njëlbeen nga xam na ko moom waru koo luye kon bu ko luyee nag kon lu ca luñ ko ca fayee du dagan Serigne Cheikh. Euh, kii moom nee na moom ab sénégalais la bu nekk ci bitim réew nee na gis na fa benn sénégalaise te nag amuñu fa beneen sénégalais bu fa nekk bu dul ñoom ñaar képp te ñoom ñaar bëgg nañoo sëy kon lu ñuy def maanaam su ko bëggee takk lu muy def. Mhm. waaw xam nga takk. moom du mbirum Sénégal rek lu dul Sénégal waaye mbirum kilifa la jigéen ji dañ koy ñaan ay kilifaam rek moo xam sénégalaise la moo xam du sénégalaise moo xam yow sénégalais nga moo xam doo sénégalais ku bëgg a takk jigéen daal da ko ñaani kilifaam ña dooni kilifaam la la koy ñaan rek du càggeenu ab sénégalais ab sénégalaise bu nekkee bitim réew sénégalais mooy doon kilifaam waaye daal ki doon kilifaam rek moo xam mi ngi ci réew moo xam nekkul ci réew ma sénégalais bi ne bitim réew it bàyyi nay kilifaam ci réew mi ñi ci réew mi la koy ñaan kilifaam yi ci réew mi ñoom la koy ñaan kilifa ga ko sañ a maye bëgg ko maye sëy ba sëy ba rek ab sénégalais nekku feek moom tax mu def neneen loolu du tee ka kilifaam moom kilifaam la ak fu mu di nekk kon ki doon kilifa jigéen gi ko sañ a maye fu ñu mën di nekk ñoom ñaar kilifteef ga moom ma nga fa buñ bokkee fuñ nekk ak ñu bokkul fuñ nekk buñ bokkee kii bëgg ñu may ko ko fuñ nekk ak buñ bokkut ak moom nekk kon ku bëgg soxna daal da koy ñaan ay kilifaam fuñ mën di nekk kilifa yi nag xam nañ ni mu toftaloo bu demoon a dem a dem nag ba kilifa yi ko sañ a maye nekkuñ fi xamu leen nekkuñ fi mooy nekk dunduñ wala mën mënut a jot ci ñoom. kilifteef nga fa nekk nag fa mu nekk fañ bokk nekk kilifa ak jullit ña wala kilifa ak kuréel ba mu bokk tañ bokk fa nekk kooku dana ko mën a maye waaye day fekk nag kilifa yi nga xam ne ñooy kilifaam ci cosaan daa fekk dañ feen dañoo amul mooy dañoo dundatul wala daa munta jot ci ñoom bu mënee jot ci ñoom moom da leen ci ñoom ñoom la koy ñaan ak fu ñu mën di nekk buñ ko ko mayee mu door a wér sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne ndax jullig ajuma mën nañ koo def ci bitti jumaa joo xam ne dañoo tëj bunti jumaa ji ñu nekk ci bitti nag di wéeru rek ci haut nga xam ne gisuñu imaam gisuñu mbooloo mi nekk ci biir jàkka ji lu tax ji tëj bunt yi jumaa kay jëru tëji bunt man naa am wóoruma xëy na bu doon ci réew moo xam ne du ñu réewum jullit du réewum jullit te ñoom mayewuñ loola xëy na foofu lay mën a amee waaw bu réew yi moom foog na kenn du fi xalaat di julli ajuma di tëji bunt ndax liñ bëgg ci ajuma mooy kiy julli jullee ci biir jumaa ji walla jullee ci sàppe su jokk ci sàppe yi kon sàppe yi bu génnee jumaa ji it lu sori sori sori mu jokkaloog sàppe yi ci biir jumaa ji rek ku ci jullee baax na moo jullee ci biir jumaa ji ñooyam bu tëjoo buñ ko tëjee nag te loolu li ma ko waxee foog naa ne du am ci réewum jullit bu boobaa na ca jokk rek na ca sàppee jokk buñ leen ko mayee na ca sàppee jokk ndax xam nga réew yi du réew jullit itam dañoo wuute am na ci ñu yaatu ñuy may jullit ñi lu lu yaatu lu bari ak ñoo xam duñu leen may lu bari am na ñoo xam duñu leen may lu bari bu doon mayuñ leen lu bari mayuñ leen ku jullee ci yi ku jullee ci biir rek lañ maye boobaa ku mënta dugg ci biir xam ne yow am nga ngànt xam ne am nga ngànt bu fekkee maye nañ ku jullee ci bitti nag bu bunt yi tëjee itam ñu sos ñu sos ci ñëw ba ci bunt bi rek sosu sos ci euh, sofu ci ba tey dana baax buñ dee dégg kàbbar yi buy sëgg buy siggi buy lu muy def ñu dégg ko ànd ak moom dana dana baax waaye li jaadu woon nag mooy bunt yi bañ a tëjee ba buñ demoon ba dégguñ ko it danañ mën a gis ñi ne ci biir gisante ñi sës ci ñi ci biir daañ leen gis ñi sës ci ñoom di leen gis ba buñ déggutoon itam ñi ci biir buñ rukoaye ña ci bitti danañ ko yëg ndax kenn ku ne bu ko gisee rukon ka gis ko rukon ba lu mu sori sori danañ ci xam daal fi ilimaan di toll ndax loolu lañ ciy bëgg kon li ci cosaan daal mooy sàppe yi na jokkoo ak sàppe yi ci biir jumaa ji buñ tëjoon bunt yi itam nañ ñëw ba sës ci ba sës ci bunt bi rek ci sàppe yi euh, buñ dee dégg di sukkandiku ci li ñuy dégg sëriñ Cheikh euh, góor goo xam ne dafa nekk handicap nga xam ne xëy na mënut a taxaw di julli mu ne ndax kon mën naa jiite soxnaam si nga xam ne mën naa taxaw di julli waa lii liñ santaane nag mooy ki mën a ki mën a indi farata yi nam ware ki ko mën a indi ci julli farata yi nem ware mooy fu ñu war taxawee mën naa taxaw fu ñu war a rukkoo mën naa rukkoo fu ñu war a sujootee mën naa sujoot kaman loola wërta topp ci ku ko mënut wërta topp ci ku ko mënut kon ilimaan ju tële na ci farata yi wërta jiite ku tëlewut loola loolu mooy liñ santaane ndax ilimaan dañ ko war a roy te ki man julli gu mat nag wërta ki mënut julli gu mat julli gu mat mooy goo xam ne taxawaay ya ca war dees na ko def su jóot ya rukkuwaan ya lu ci ne danañ ko defe nam ki man loola wërta topp ci ginnaaw ku mënul loola kon ki nekk ak soxnaam ci kër gi te soxnaam moom man loola te mu mënu ko du ko mën a jiite nag du ko mën a jiite mën naa seet keneen ku leen boole jiite bu ko amut nag ku nekk julli rek bu ko amut ku nekk julli waaye ilimaan di nga xam ne dafa munta indi farata yi nam mate du jiite foo xam ne mën naa di farata yi na mate bu doon ñaar ñu ko tëlee nag danañ mën a jiitante bu da ñaar ñu ko tëlee dañ mën a jiitante sëñ Cheikh kii moom mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu jënd lu mel ni oto jox ko keneen mu cay liggéey waaw xanaa anam ga rek de moo jara leeral mu cay liggéey ci gan anam am na anam yu dagan moom bu dee daa jënd oto jox ko nit ne ko dee ci liggéey weer wu ne ma fay la nàngam loolu dagan na liggéey ba lu juddoo moom borom oto lu ca juddoo moom borom oto bi moo koy moom lu sikki ci oto bi moom borom oto bi moo koy defar waaye kim liggéey loo moom lañ liggéey ci lu mu ko war a fay ci weer wu rek bu jotee mu fay ko ko moo xam amee na ca moom borom oto bi lu toll noonu walla amewu ko ci moo xam amee na ca lu ëpp loola fopp wala amewu ko ci bu dee loolu dagan na mooy koy liggéeyloo di ko fay la rek loolu moom dagan na am na anam nag yoo xam ne moom xam naa buñ demee ba munta ñàkk lañ koy lañ naan mën nañ koo def lañ naan mën nañ koo def te mooy jox ko ko ne ko bés bu ne nag ma indil nangam bés bu ne nag ma indil nangam loolu moom daganul ci cosaan ndax xamoo ba xam dana ko am wala du ko am xamoo ba xam dana ko am wala du ko am ci cosaan daganut waaye nag bu ñu seetloo ne borom oto yi itam buñ defut lu mel noonu ñi ñuy jox seeni oto dañ leen di nax loolu mën naa tax ñu woyefal foofu ba may leen ko ngir aar leen ndax am na ñoo xam ne ku leen jox oto rek ne leen loo am indil bu weer dee mu fay la nangam mën naa am lu ci ëpp dañ koy téyel seen bopp ginnaaw da leen loo am indil rek loolu nag mooy dëgg moo jaadu moo jaadu waaye nit ñi àgg nañ foo xam ne boo jëflante ñoom ci noonu mën nañ laa indil lu néew a néew téyel seen bopp ñoom loo xam ne sañuñ ko woon téye xëy na ngir aar nag borom oto bi mën naa tax ñu may ko mu nekkoon de ma indil nangam ci bis bi waaye na na ko xool ba gis ne nag loola itam lu lu war a mën a am la ba xëy na bu ko amul tayit ëllëg mën naa am lu ko ëpp mu mu mu mu la mu am tam ëpp mu fàtte ko lim li matutoon waaye na doon loo xam ne lu yoonu maanaa lay doon daal ba li ëpp moom ci bis yi mën na ko caa am te léeg-léeg it mu am lu ko ëpp boobaa mën naa nekk ngir aar waaye du cosaan cosaan moom mooy dëgg naan ko liggéey ci loo am andil ma bu weer dee ma fay la nangam loolu moom moo leer naññ ne moom dagan na waaye nag dee ma andil bis bu ne nangam loola moom buñ ko dee daganal it ngir aar boroom oto yee tax rek ndax buñ ko defutoon mën naa am moom itam ñu yàqal leen jël seeni alal te ci mën dara Serigne Cheikh. kii moom dee laaj mu ne ndax koo xam ne dafa am ngànt ci. dem ca jàkk ja moom képp su àndu su àndut ak ku koy dimbale mu ne ndax kooku danañ ko jéggal kon mu toog ba a dem ci jàkk ja waaw loolu de dëgg dëgg nag moom moom loolu lañ jàpp xëy na ki laaj dafa gis xadis boo xam ne kaw gi daa nuruwut loolu kaw gi day mel ne amul ngànt dee su ko dogal ngànt dee su ko ko nangul am na xadis bu silmaxa abdullah ibnu um maktum di nettali ne dafa mas ñëw ci yonente bi ne ko mankat damay silmaxa dafa ma dëkk daa sori te yoon wi itam daa neexut te awma ku ma indi xam loolu lépp bari na ci silmaxa ndax am naa ngàntul bañ a julli si julli mbooloo mu ne ko waaw ba muy dem mu ne ko ndax bu ñu noddee da ko dégg mu ne ko mu ne ko ah kon kat xaw ma sa ngànt man naam xadis bi noonu la gis moo tax muy laaj laaj bi jaaxal nañu bari nag ci borom xam-xam dëgg-dëgg nag euh, liñ mën a jàpp moom li gën a dëppoog tëraliyun lislaam yépp daal mooy nag ngant loolu moom ku ko am danañ ko ko nangul mu bañ julli si ci jàkka yi ndax am na ñu gën a néew ñu gën a woyof ngàntu ñooñu te nangul nañ leen kon mooy koo xam ne dafa am ngàntul dem ca jàkka ja kooka ñàkk dem jàkkaam du du du ko yàqal dara mën naa jullee fa mu nekk bu fa amee ñu mu àndal julli baax na bu ko amul mu julli moom rek kooka du du wax ne amul ngànt ci dëgg-dëgg liñ mën a jàpp moom ci tëralinu lislaam wu yaatu wi jëmmi xadis bi kese buñ ko xoolee moo tax borom xam-xam yu bari dañ naan hadis bi kenn mënu koo firee li muy firi ci kaw rek ne daal ginnaaw yaa ngi dégg nodd gi rek kon amoo ngànt noonu la ko waxee waaye nag duñ ko mën a firee noonu ndax loolu dëgg-dëgg ku ko xool dana xam ne euh, ku ko firee woon noonu du déggoo nag ak euh, doxeen ni ñu xam lislaam di ko doxe ci ak jàpp ndal te yonent bi wax ne diine ji diine jàpp diine diine jàpp ndal la te loolu wax dëgg yàlla du ak jàpp ndal moom gumba bu dëkk fu sori amul ku ko andi yoon wi naqari ba nag ñu ne ko da ngay julli ji loolu du jàppandal moo tax kon ma ne su ko firee li muy firi ci kaw gi de su ko firi am na ñuy wax ne euh, da caa jublu ne ah boo bëggee boo bëggee yool bi moom boo bëggee yoolu julli mbooloo moom loolu du du la may nga bañ a ñëw ba noppi am ko loolu du la may nga bañ a ñëw ba noppi am ko firee ko noonu xëy na mooy tane am na sax ñu ne firee ko noonu tam dëgg dëgg dëgërut waaye daal lu mën di xew moom du neex a firee moom ngant yi yëpp wala yëpp bu nekkee ci yow it amoo ngantul bañ julli si jàkka ji loolu moom wax dëgg yàlla dëppoowut ak tëraleenu lislaam bi ñu xam ci ak jàppandal sëriñ Cheikh mm-hmm. kon dëgg dëgg daal ku am ngàntu waxuma la àgg foofu sax ci moom ni mu waxee koo xam ne dafa am laago te amul ku ko yóbbu ku àggul foofa sax am na ngànt lu àggul foofa sax loo xam ne ku ca nekk eh, sag ñàkk dem ca jàkka ja deesu la ko jàppe deesu la ca yedd sëriñ Cheikh kii moom nee na ba muy doon gone baayam da ko digaloon mu jaayanteek ab sëriñ nee na mu dem ba doon mag ndax sañ naa bàyyi sëriñ boobu dem jaayante ak beneen sëriñ ak sëriñ bu mat mooy kan ak nan lañ koy tànnee waaw sëriñ de xëy na daa daa sëriñ daa am sëriñ am ndax ban sëriñ la bëgg ban sëriñ la bëgg ndax sëriñ bu koy yar la bëgg du jàpp ci loxoom di ko jaarale ci yoon wi di ko digal di ko tere ndax boobu la bëgg walla sëriñ boo xam ne da ci mottali kóllëre da ci sàmm nos bi nosub yoon wi ci misaal ñaar yooyu lu mu ci bëgg ci la aju bu dee sëriñ dëgg dëgg dëgg bu ko yar la bëgg moom bu fekkee dañ koo jébbaloon koo xam ne moom ba mu demee ba xàmmeel boppam xam na ne kooka mënut loola day dem seeti ku man loola day dem seeti ku man loola ginnaaw loolu la bëgg bu fekkee nag ku muy mottalee kóllëre la ku muy sàmmee noos bi la kooka moom euh, mën na caa mën na jërul nag mu ci wuuteeg way juróom ndax amul lu ci yàq yàq gu ci nekk wéyeeg moom ne mooy sëriñam bi mu demee ba xàmmeel boppam loola ak yàq mën na caa bañ a nekk ak yàq mën na caa bañ a nekk waaye bu dee nag ku ko yar la bëgg moom jaarale ko ci aw yoon te kiñ ko booleeloon nag moom xam na ne mënu ko boobaa bu fa desee day day day day day lor boppam xëy na mën na fa bàyyi nag kóllëre gi ak luy sàmm nos wi te wuti nag sëriñ dëgg dëgg dëgg bu koy yar bu koy teg ci yoon wi nga xam ne moom moom la bëgg sëñ Cheikh mm-hmm. bu dee sëriñ dëgg nag eh, sëñ bu mag bi moo ko leeral wax na ñetti xeeti sëriñ waaye foog naa bu ñuy wax sëriñ fi xel di gën a dem mooy sëriñ bi yare ndax wax na sëriñ bi jàngale ak sëriñ bi yare ak sëriñ bi yéege ñett yooyu la wax na ñooy xeeti sëriñ waaye bu ñu waxee sëriñ fi xel di gën a dem dëgg-dëgg mooy sëriñ bi yare sëriñ bi yare nag lam ca wax dane ñett war nañoo ne ci moom ñetti biir suñ bu mag moo koy wax la ca njëkk mooy mu xam nit nit xam nit ci boppam xam nit xam biiru nit mën a xam soppiku ya cay am la koy defar la koy yàq mu mën koo xam mu xam ko ñaareel ba mu xam jamono itam xam àddina ak jamono moom it ak coppiku ya cay am ak ak atte atte yi attey yoon ya ca nekk ak attey aada ya ca nekk mooy la ca yoon digle ak yem ca tere la ca aada maye ak la ca aada mayewut loole itam mu xam ko ñetteel ba nag mooy mu xam nag bi mu xamee nit xam jamono xam nag nu muy mën a soppaxndikoo moom jëfandikoo yooyu ba mën a soppaxndiku ci nit ki ba mën koo jubbanti ba mën a def ci moom lu mu bëgg a def ci moom mën a génne ci moom lu mu bëgg a génne ci moom sëriñ boobu mooy sëriñ bi mat sëriñ ni ko sëñ bu mag bi waxee ci wàllu yar te foog naa mooy bu ñu waxee sëriñ wàllu googu lañ ci gën a gën ci gën a bàyyi xel mooy sëriñ dëgg-dëgg sëriñ sëriñu sàmm ko leer nag ak sàmm am nos boobu moom mooy benn xamal suñu bopp euh, moom sàttuñ ci yooyu yëpp sàttuñ ci yooyu yëpp lu mën a am ci yooyu nag moo gën ka ko amut lu mën a ko am ca yooya la mu ca man a am moo gën ka ko ca amut sëriñ Cheikh kii nee na moom lan mooy màndarga yi ñu xamee ne sëriñ bi àgg na ci yàlla ak yan melokaan moo koy ràññalee bañ mën koo xàmmee waaw loolu it day li ci sëñ bu mag bi wax rek lan ci lan ciy wax te mooy àgg ci yàlla rek ci boppam mooy lan moom mooy lan bu ñu xamee mooy lan rek kuñ gis ca moom loola jàpp ne kon àgg na ci yàlla moo xam tudde nañ ko sëriñ moo xam tudde wuñ ko sëriñ kon nit la waaye du mbirum sëriñ rek kon nit ku àgg ci yàlla daal euh, jëmmi àgg ci yàlla ci boppam sëñ bi dafa wax ne euh, mooy koo xam ne yàlla rek lay gis ci lu ne yàlla rek lay gis ci lu ne mooy léppam day yàlla day yàlla mooy léppam yàlla rek la ci bàyyi xel lu muy def lu yàlla bëgg lay doon lenn lu yàlla bëggut du ko def léppam daal da yàlla loolu nee na mooy àgg ci yàlla àgg ci yàlla mooy loolu moo tax mu ne màndargaam ci àgg ci yàlla mooy koo xam ne moom it foo ko fekk ca ca loola la nekk foo ko fekk noona la mel léppam ci yàlla rek la nekk du génn yàlla benn yoon du ko génn mooy du def leen lu muy tere du bàyyi leen lu muy digle xelam du ko wékk ci lenn lu dul moom loolu daal noonu la sëñ bi firee àgg ci yàlla yooya itam ñooy màndarga yi àgg ci yàlla moo xam dañ koy tuddeb sëriñ moo xam tuddewuñ ko ab sëriñ moo xam daa doonub sëriñ moo xam doonut ab sëriñ sëriñ Cheikh. kii mu ne lan ngay laabiré góor goo xam ne dafa nekk Europe masalan soxnaam nekk Sénégal nee na mu tere ko nag muy jël ay photom di ko statistique ci WhatsApp bi waaye soxna sa day lànk mu ne góor googu loo koy laabiré kon waaw loolu itam da jël di nekk Europe nekk ci foo man di nekk rek mooy nit ak soxnaam la rek nit ak soxnaam la nit ki tere ko lu mu ko sañee tere mu lànk mooy kon soxna si da ko déggalut mooy kon nit ku am soxna su ko déggalut rek ci tënk moo xam ci anam gii mu ko waxee la moo xam ci geneen anam la mu ngi def lu mu ko tere te sañ ko koo tere mu bañ koo bàyyi loola de li yàlla li yàlla dénk ki am lu mel noonu loolu rek la ñuy fàttali xanaa mooy koo xam ne soxnaam da koo déggalut da koo déggalut yàlla dafa wax yu mu wax ne mën na caa jaar ak moom yooyu rek la fàttali xanaa daf ne wallaati taxaafuuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna fa in ataanakum fala tabxu alayhinna sabila inna allaha kaana aliyan kabira mooy ku ci am soxna su ko déggalut mën naa jaar ak moom ci yii mën na ko waar mooy mën naa waxtaan ak moom mën naa waxtaan ak moom ngir génne ko ci ca loola ci anam yu mën a jaar nag ci waxtaan bu waxtaan wa saafara loola mu jeex ñu ànd wéy bu ko waxtaan wa saafara wut mën na ko won ginnaaw mooy bu guddee mu won ko ginnaaw tam xam ne lii a tax tam xam ne lii mu ko ñàkk déggal ci nangam ji moo tax mu doxaleek moom nii kon mooy won na ko ne bégut ndax loolu wane ñàkk bég la mu won ko ginnaaw buñ tëddee tam xam ne lii tax bu ko saafaraa mu jeex bu ko saafarawut bu doonee kuy kuy dóore bu doonee kuy dóore mën na koo bàcc bàccal bu doonee kuy dóore mën na koo bàcc bàccal tam xam ne lii tax ba tey mu wax ne yooyu yépp kon mënees na koo def loo ci def nag ba jur saafara rek nag nga xam ne nga yem foofa fa in ataanakum fala tabuxu alayhinna sabila loo ci àgg ba def ko tam saafara rek nag nga yem foofa xam ne saafara nga bëggoon rek te am na ngeen ànd nag wéy kon daal mooy ku ko déggalut la rek soxna su ko déggalut la na seet nu mu koy lijjantee bu ko mën lijjanti ci yii bu ci lijjantikoo baax na bu ci lijjantiku wut nag te mën koo wéyaale mu wéyaale ko muñ ko bu ko munte wéyaale nag mu may ko baatam ndax loolu moo tax ñu ñu ñu ñu yoonal maye baat mooy dañuy dem ba foo xam ne góor gi du mën a wéyaale nangam lu munte wéyaale te fi ñu mën a jaar ba saafara ko jaar na ci te saafarawut te mënu koo wéyaale foofaa nag day am sañ-sañu mën a maye baat bu dee lu ko jaral la te mënu ko woyaale boobaa tam jaar fi mu war a jaar fépp sottiwul saafara wut mu may ko baatam bu fekkee mënu ko woyaale te jar na ko ci moom suñu seex kii mu ne ndax dagan na ñuy jëfandikoo al wirdul maaxuus te amuñ ci ndigalul kenn te amuñ ci ndigalul kenn ndigalul kenn xëy na li ñuy tuddee ndigal ndigal guñ la jegleel yow nga xam ne yow lañ ko jox waaye sëñ bi moom jox na ci ndigal ñëpp sëñ bu mag bi kon mooy ndigal luñ boole ñëpp moom sëñ bu mag bi joxe na ko waaye ndigal luñ la jox yow sa bopp nag moom xëy na laaj mooy loolu loolu moom ci aada aada yi tasawuf ci boppam rek dañ naan wird daa aajowoo loolu dafa laaj loolu dafa laaj nga am ci ndigal luñ la jox yow yow luñ la jagleel yow mooy izn xaas ci aadee tasawuf te nag wirdul maaxuus ci biir tasawuf la ñëwee kon aada jooju mën nañ ko caa doxal bu mënee nekk mooy gis nga ñu ko ñu ko mën a joxe mën ngaa àgg ci ñoom kon demal ci kenn ci ñoom mu jox la ko nga ko ci aada ji bu fekkee gisoo ko nag nga dem ci ndigal ndigal lu ndigal lu yaatu liñ digal ñëpp muy ndigal li sëñ bi digal ñëpp nga sukkandiku ci boobaa day mel ne dangaa ñàkk pexe liñ naan ko ku ñàkk ku ñàkk uh, ndey nàmp maam hmm? ku amul ndey nàmp maam ndey ji moom mooy ñu nga am lu ñu la ndigal ñu la jox yow sa bopp loolu nag ku sañ a joxe ndigal loola moo la koy jox boo ko amul nag nga nàmp maam mooy ndigal lu mag li fi nekkoon nga sukkandiku ci nag di ko jëfandikoo waaye saa boo gisee ku la ko mën a jox nag ndigalul lu lu la jagleel yow nga jël ko ci moom ndax loolu mooy tënku ci aaday tasawuf yi donte yoonu sëñ bi moom mën naa am aaday tasawuf tënku ko ci lépp sëñ Cheikh kii mu ne ndax jigéen joo xam ne dafa tollub diggante bu ko boroom këram fase ndax fase ma day tàbbi ak ndax bu ñu demee ba ma am doom boroom këram mën na koo delloosi maanaam lu ñuy tuddee fay li waaw ndax ku tollub diggante buñ ko fase pase ma dana wér dana wér dana wér tollub diggante teewut ñu mën a fase nit kon passé ma dana wér loolu mooy xaaj bu njëkk bi bu dee xaaj bi ci topp nag ndax bu muccee dana ko sañ delloosi déedéet déedéet ndax ki tollub diggante buñ ko fasee day dugg ci idda te iddaam mooy ba ba muy mucc ba ba muy mucc mi ngi ci idda saa bu muccee rek idda ji jeex na idda fu ñu ko waxee nag bu jeexee rek mooy sëy ba dog na dog bu jeex gut nag te muy idday juñ mën a dellu ginnaaw ci biiram sëy ba dogagut kon mooy bi mu ko fasee tollu tollub diggante fii ba ba muy mucc bu ko neexee mën naa dellu ginnaaw lu jiitu mu mucc dellu ginnaaw lu jiitu muy mucc la koy mën a defe bu fekkee bii rek la ko fase walla bii mooy ñaareelu passé kon fii ak muy mucc mën naa dellu ginnaaw dellu ginnaaw mooy mu ne rek ma waxoon wàqet ma waxoon wàqet mooy li ma ci woon génn naa ci rek ñu àndaat wéyal seenub sëy waaye bu idda jeexee nag sëy bi day dog bu dogee mooy kon dellu ginnaaw amatul ndax nekk sëy bi nekkatu fi boobaa ñaanaat moo fi nekk ñaan ñaan buñ ko mayee mu xam ne may nañ ko <laughs> mën nañ ko gàntu itam nag ndax sëy bu moom dog na ba noppi kon saa bu muccee rek it ji jeex na bu idda ji jeexee sëy bi dog na bu sëy bi dogee bu bëggaatee day ñaanaat bu ñaanaatee naatee ñu may ko nag bu ñaanaatee nag kay ñaan lañ koy lañ ko digal lay def kay ñaan lañ koy digal lañ koy digal buñ ko mayee mu xam ne may nañ ko buñ ko mayut mu xam ne mayuñ ko waaye li ñuy tuddee dellu ginnaaw moom bu bu bu bu mucc xasee am rek du mën a nekkati ndax sëy ndax idda ji day jeex bu idda jeexee sëy bi day dog sëñ Cheikh kii nee na moom dafa dugg ci jàkka ji jàpp ni nit ñi dañoo julli ba noppi nee na mu tàmbali di julli ba ci rakka bu ñaareel bi nee na waa jàkka ji daal di taxawal julli mu ne ndax kon day dagg julli gii mu nekkoon ànd ca mbooloo mi wala day àggale rek ak julleem ak su fekkoon ne julli na ba noppi nag ndekete waa jàkk ci julleeguñ ndax kon day baamuwaat julli gi ànd ak mbooloo mi wala da koy bàyyi noonu rek. Mhm. bu duggee jàpp julli nañ ba noppi mu tàmbali julli jullig boppam far ñu taxawal boobaa dañ naan julli gii mu tàmbali da koy def la da koy soppi naafila te woyofal ko mooy gaawal ko daal ba mën a ànd seeg ñi nekk ci fa ci farata ji soppi ko naafila nag mooy bu fekkee matagul ñaar rakka da koy mottali ñaar rakk ginnaaw ci ñaareelu rakk la nekkoon nii kon moom day àggale ñaar rakk yooyu rek daal di taaya sëlmal ñëw dab si ñi ñi ñi julli farata mu ànd ak ñoom mbooloo mi bu fekkoon benn ràkka la am ñu taxawal na ci gaaw teg beneen te gàttal ko sëlmal ñëw ànd ak ñoom bu fekkee nag dafa ñëw julli ba noppi jàppoon na julli nañ ba noppi mu ñëw julli ba noppi ba sëlmal ñu door a taxawal boobaa itam sopp nañ mu ànd ak ñoom mu julliwaat ànd ak ñoom boobaa julliwaat gi muy julliwaat dañ koy jàppee la day doon la ci moom loolu yonent bi da koo mas a digal da ko am kum dafa am kum ko mas a digal ku mas julli ba noppi ñu taxawal moom mu bañ a julli bi ñu noppee yonent bi ne ko lan la mu ne ko ah, man kat dama julli woon ba noppi mu ne ko bu lu mel ni amatee na nga àndaat ak mbooloo mi julli bu ko defee mu doon la ci yow mu doon la ci yow kële moom daa soppi lam nekkoon la bu ànd ak mbooloo mi ngir am jullik mbooloo kii nag lam julli woon ba noppi moom mooy farataam day ñëw nag àndaat mbooloo mi ànd ga mi ñoom nag doon naafila ci moom mën na caa amee yaakaar it yàlla mën koo jox yoolu ku julli jullik mbooloo waaye moom julli gam woon mooy farataam gii mu àndaat ak mbooloo mi mbooloo mi ñoom farat la ci ñoom waaye moom naafila lay doon ci moom sëñ Cheikh mm-hmm. kii nee na moom lan mooy àtte koo xam ne daana julli julli farata yi waaye daawul julli gee mu ne kon nan lay fayee gee gu nga xam ne daw ko julli ku daa julli farata yépp ba mu des gee kooku de mooy am na lum liñ ko digal am na lum ci def am na lum ci bàyyi lim ci bàyyi mooy julli gee gi julli nag ku ko julliwut da koy fay da koy fay rek da koy fay rek bu xamee ne moom diir sàngam daal boo xam ne xam na ne moom daaw ci julli gee da koy wàññi ba xam julli gee nu mu toll mu fay lu toll noonu mu fay julli gee yu toll noonu ak waxtu mu ko mën di fay nag ak nu mu ko mën a fay waaye na ko fay ba mat bu fekkee xam na ni toll bu xamut ni toll mu nattale ko mu nattale ko xam na ne man daal dafa mel na ci weeru kooru wala weeru baraxlu at sàngam daal xam naa ne ci laa gëj ju léegee gee waaye xamut sax kañ la ca weer wa kon mun ta dëgg-dëgg ñaata julli la wut waaye boobaa na julli lu ko wóor ne moom euh, mat na lam julliwut kon bu ko tàmbalee ci njëlbéeru weer danaan kon na wàññi rek la tàmbalee ca gee njëkk ca weer wa weer xam ne moom ca la gëjoon a jullee gee fay boobaak léegi bu ko fayee dana xam ne kon lim fay moom bu ëpp itam yéesu kon ci anam googu la li am solo mooy ku amee ku julliwut moom da koy fay ak lu mu bari bari bari bari bor la bor nag lu mu bari bari dañ koy fay bu koy fay nag da koy def ci anam gum gum ko mane boo xam ne du diis ci moom waaye itam nag du doon euh, du ko du ko sàggane itam nag mhm, suñ Cheikh kii mu ne lan mooy atteeb rey gunóor yi ci jëfandikoo ay produits yoo xam ne moo leen rey waaw yooyu de dagan na bu dee luy lor nit nit lu koy lor mbaa mu di ko yàqal ci xeet yooyu xeeti ndegment yi ak yi nii lu ci lor nit mbaa mu di ko yàqal nit ki sañ na ko lor loolu maye nañ ko yonente bi sallallahu wa sallam may na ko maye na ko maye na ñuy lor yi nga xam ne dañuy lor nit mbaa ñuy yàqal nit sëñ Cheikh kii moom nee na jigéen a ngi joo xam ne dafa faatu bàyyi benn doom bu jigéen mu ne ndax doom ju jigéen jooju sañ naa jël néegu yaayam boobu génn àddina waaw ci waxin de bu dee ci waxin bu dee ci waxin bu fekkee jigéen jóge na fi bàyyi doom jigéen ak bàyyi ñeneen ñu koy doon itam bàyyi na ñeneen ñu koy doon waaye bàyyi na ci biir ñi koy doon doom ju jigéen te am na ab néeg bu moomal boppam moom mi fi jóge mu ne ndax kon jigéen ji dana ko mën a féetewoo féetewoo ci waxi wolof waaye féetewoo la muy firi ci miraas moom mooy ndax dana ko mën a jënd jënd ndax féetewoo bu ñu ko waxee ci miraas moom jënd lañ ca jublu waaye du féete woon ne rek jël ko rek déedéet loolu lu amul ci miraas bu ñu naan féetewoo itam dañ koy xayma mu jënd ko boobaa nag lu ñuy jaay moom dañ ciy dellu ci aada ak maslaa maslaa mel nag du jëm ci njëg gi ñu koy jaayee du jëm ci loolu waaye day jëm ci kañ kan lañ koy jaay foofu la ñuy waxtaane ba ba déggoo maslaa waaye jëmut ci luñ koy jaayee maslaa ci njëg gi moom kenn du ko def jaaduwut liñ naan njaayu miraas jaaduwut tooñ la tooñ la tooñ ñi donn la ndax seen alal ñu wàññi xiimaam la loolu tooñ la waaye maslaa gi nag mooy kan lañ koy jaay foofu la ñuy waxtaane ba juboo foofa nag la gën a yanu maanaa mooy ginnaaw jigéen ko moomoon jaay ko jigéen moo gën a yanu maanaam di ko jaay keneen di ko jaay góor ci misaal jigéen ji doon doomam itam jaay ko ko moo gën yenu maanaa jaay ko jeneen jigéen ju dul doomam moo gën a rafet moo gën a rafet loolu mooy maslaa kon ci anam googu mën na faa dugg waaye da koy fay dañ koy xayma ba xam ne nangam la war a jar ñu nag ah ginnaaw néegam la woon nag kon bu fekkee doom ji soxla na ko doom ji jënd ko moo gën a rafet wala moo gën wala mel noonu bu ko soxlaa te man koo jënd mu jënd ko loolu moom mën naa nekk loolu lay firi waaye miraas moom amut ñu ne rek diw na féete wa nàngam déedéet na ko féete mooy na ko fay nañ ko xayma mu fay ko ñu xayma nàngam diw fay ko ñu xayma nàngam diw fay ko bu ñu noppee nag njëg yooye yépp ñu boole ko mu doon li ñuy miraas kenn ku nekk am ci lam ci war a am sëñ Cheikh kii nee na waa ji moom mi ngi nekk ci ab dëkk di fa liggéey yàlla dogal nag mu bëggee indi soxnaam soo xam ne da ko bàyyi woon ci ay waajuram bàyyam na ko déedéet doo ko yóbbu mu nekkoon moom lu muy def ah na jéem waxtaan ak baayam rek na jéem waxtaan ak baayam rek ndax it nag e, sa baay a ngi béréb ñaari waajur yëpp la wax sax ñaari waajur yi ñu ngi ci béréb bi ak soxnaam moom muy liggéeyee feneen Touba dëkk ci misaal moo ko way juróom ak ay way ak soxnaam di liggéeyee beneen dëkk xëy xëy bëgg yóbbu soxna si way jur ne ko déedéet ah na waxtaan ak ñoom nag ndax it way jur leen mën a bàyyi ñoom rek xanaa nag na seet nu muy lijjantee daal ba du bàyyi way jur ñuy tumurànke waxtaan ak ñoom rek bu amee ku fi mën a ñëw di leen taxaw baax na nañ fexe ba juboo ba jubóog ñoom daal waaye loolu moom duñ ko ne lii nga war a def lu dul fexe ba waxtaan ak ay waajuram bu juboo ak ñoom bu fekkee lu mën a muñ la moom bu fekkee amagut bunt te mën naa muñ mu bàyyi ko fii di wut bunt bu demoon ba munta muñ nag waajur yi nag xam ne ñoom it kon <laughs> dafa ñàkk pexe waaye daal waxtaan la daal wa ñuy waxtaanee seen biir ba jëm koo lijjanti waaye du luñ naan ko dangay def lii wala doo def lii ndax mbirum mbirum biir la moo xam ne dañuy fexe ba lijjanti ko soxnaam la dëgg la euh, moo ko war a fam ko nekk loola war a nekk loolu dëgg la waaye ay waajuram itam nag moom moo leen war a taxawu bu fekkee soxnaam moo leen doon taxawu bu ko jëlee yóbbu te amul keneen ku leen taxawu loolu itam waru garam la kon daal na fexe ba lijjanti ko ba ñu mën a déggoo rek sëñ Cheikh. jigéen joo xam ne dafa gis euh, baax laata muy sangu ba kon mooy daa amee woon janaaba bi muy laataa sangu far gis mbaax foog naa loolu lay war a jublu dafa ame janaa ba mu demee bay bëgg sangu far gis mbaax mooy day bañ a sangu far xam ne mi ngi ci mbaax saa bu mbaax mi jeexee mu door a sangu jàngaay loole rek lay def bu sangu janaa ba ndax bu ko ëpp doole da ko daa tege ci kawam kon day dugg ca loola rekk bu loola jeexee nag mu doora mu door a sangu sëñ Cheikh. kii mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy lekk yàpp till ak yàpp mbët. waaw bu dee ci ngër mi de dañoo sib dañoo sib till dañ koo sib till bu dee mbëtt nag moom dagan na bu dee ci ngër mi. mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jàng yenn gisiin yi nga xam ne day wax ne nit cosaanam ci golo la bàyyi ko jëmmi jàng gi rek day waa wàññiwut dara jàng gi rek jàng gi mooy xam ña koy wax lan la ñuy wax ak fuñ ko teg loolu moom jëmmi jàng gi rek waa wàññiwut dara la baaxut kay mooy jàng ko jàpp ko jàpp ga moo baaxut jàpp loolu jàpp ne nit ci golo la jóge loolu moo baaxut waaye ña koy wax nag nga xool la ñuy wax ñoom lan la ak fan lañ ko teg loolu moom dara nekku ci ndax moo lay may sax nga man koo tebbi moo lay man bu fekkee am nga am nga xam-xamu tebbi ko nga mën koo tebbi kon jëmmi jàng gi rek wàññiwul dara waaye jàpp gi moo wàññi dara jàpp gi moo xam da nga koo jàng moo xam da koo dégg rek daal di koy jàpp yow it loola moo wàññi dara sëñ Cheikh euh, kii mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu yor ab xaj waaw bu ko yoree di ko jariñoo ci liñ maye ñu jariñoo cab xaj dana dagan liñ mayee ñu jariñoo cab xaj mooy sàmm nit wutub xaj ngir mu di ko sàmmal di ko wattul wattu wattul këram walla di ko wattul ak juróom loolu maye nañ ko ci may nañ ab jullit mu wutub xaj bu koy wattul alalam may nañ ko mu wutub xaj bu muy rëbbe bu dee ña nga xam ne loolu seen aadala la may nañ leen ko liñ mayewut daal li tubaab yi def ñoom wutub xaj boo xam ne da nekk ak moom noonu rek di moom di ko wettali ko di yu mel noonu loolu lañ may wut loolu lañ mayewut waaw bu dee aajo la mu lay wattul walla mu lay rëbbal loola moom maye nañ ko suñu cheikh kii mu ne ndax dagan na ci ab docteur bu jigéen boo xam ne jullit la muy faj ay góor safaan bi itam mën nañ koo laaj docteur bu góor di faj jigéen ak docteur bu jigéen di faj góor ndax dagan na lii cosaan mooy jaaduwut jaaduwut mooy kon kilifa yi ñoo war fexe ba wàll gune ñu am ca doktoor yu doy yu dooni góor am ca docteur yu doy yu dooni jigéen bu góor ñëwee dem ca góor ga bu jigéen ñëwee dem ca jigéen ji loolu mooy cosaan moo jaadu bu amut nag bu pexe amut nag ñu xam ne pexe amut kii moom jagadina béréb bee itam lañuy faje dem na fa kam fa fekk muy faje bu dee kenn la amut lum mu ciy tànn amut lu ciy taamu ci kooku rek lay man dem bu dee góor la te jigéen a fa nekk moom rekk ko fay def boobaa ngànt la bu dee jigéen la te góor rek fa ne te moo ko fay def it ngànt la ngànt la ci moom waaye du ngànt ci kilifa yi nag kilifa yi ñoom ñoo war a a taxaw ba euh, lu ci ne ñu am te ñu doy ci ay góor ak i jigéen bu góor ñëwee mën a dem ci góor bu jigéen ñëwee maa dem ci jigéen waaye ki dem nag moom la fa fekk bu fekkee amu ca ak tànn loola moom gàntalee doon ci moom sëñ Cheikh. Euh, kii mu ne bu fekkee dañoo tabax jàkka ci quartier bi suñu bëggee tabax jeneen jàkkar ndax am na diggante boo xam ne ñaari jàkka yi war nañ koo sore ak ndax murid yi nekk ci bitim réew mën nañoo julli ajuma ci kër sëñ Touba yi nekk foofu. waaw laaj bi da ñaari wàll yi xam na bu dee ndax danañ wax ne diggante jàkka ak morom ja nangam la war a toll loolu jàppuma ko jàppuma ne dañ naan nangam la war a toll mënuñoo ñàkk a soree nangam jàppuma loolu waaye li ñu war a xool rek mooy jublu gi jublu bu dee jàkka ju ju ñuy jullee juri juróom la jublu ga bokkut ak lañ jublu ci jumaa ju ñu jullee juma jublu yi bokkuñ bu dee jàkka moom jublu gi mooy waa koñ bi di fi mën a daje waa koñ bi kon koñ bi bu amee jàkka joo xam ne doy na waa koñ bi bu doyee waa koñ bi ci seen julli juróom kon soxlawuñ ñu fay def jeneen jàkka soxlawuñ ñu fay def jeneen jàkka ndax jàkka ju doy waa koñ ngi fi wala jàkka yu doy waa bi ñu ngi fi kon soxlawu ñu fay def jeneen bu dee jumaa nag moom jubluwuñu waa koñ bi di fi daje waaye waa quartier bi wala waa dëkk bi sax bu dee dëkk bu bu rëyut bu rëyut lool kon bu dee am nañ jumaa joo xam ne bu dee dëkk bu yam la waa dëkk bi doy na leen kon sañuñ faa def jeneen ndax liñ jublu mooy dajaloo gi ginnaaw nag lii mën naa dajale ñi war a dajaloo ñëpp kon suñu ñoo def leneen bu demee ba munta dajale ñépp nag ñu def jeneen bu fekkee ñaari doy na kon duñ def jeneen bu ñaari doyut ñu def jeneen noonu rek lañ koy toppe moo xam ci ajjuma ji la moo xam ci julli juróom la julli juróom moom koñ bi la bu dee ajjuma nag quartier la bu dee fi mel ne Touba bu dee ci yeneen dëkk yu gën a ndaw mën nañ ne ab dëkk dëkk bi yépp la léeg-léeg sax mu doon ay dëkk yu bari yoo xam ne dañoo dend waaye ñoom ñëpp jumaa ji doy na leen kon waruñ faa def jeneen buñ demee nag ba doyu leen nag ci lañuy ñuy a def jeneen waaye loolu kon aju wut ci ay soriwaay ak jegewaay waaye mi ngi aju ci doy gi ak ñàkk doy gi rek bu dee kër sëñ tuubaay ndax mën nañ faa jullee ajuma kër sëñ Touba nu nekk lañ mel am na kër sëñ Touba yi xon jumaa dafaa nekk kon kër gi jumaa nekk na fa ca jumaa ji lañuy jullee am na yoo xam nag jumaa fa fu jumaa newut nag ci ngër mi ci ngër mi moom deesu fa jullee ajjuma ci ngër mi ci jumaa lañuy ñuy jullee ajjuma deesul jullee ajjuma fudul jumaa ci ngër bu dee yeneen ngër nag mën nañoo jullee ajjuma fudul jumaa waaye bu dee ngër mi moom fudul jumaa mu ne su faa jullee ajjuma moo xam kër Sëñ Tuubaa lañ ko tuddee moo xam tudde ko ko moo xam neen lañ ko tudde sëñ Cheikh kii mu ne ndax juum ci julli la mook juum ci julli farata ñoo bokk ay àtte wala déet ci cosaan de ci cosaan waaye nag am na buñ ko seetloo sëñ bi mu ngi wax ci aljawharun nafis am na juróom-benn mbir rek yu ñu wute bu génnee juróom-benn mbir yooyu rek ñoo yam am na juróom-benn mbir yu ñu wute bokk na ci ku fàttee jàng faatiha ba rukkoo ba noppi rukkoo ba noppi door a fàttali ko ne moom kat jàngutoon faatiha loolu bu dee farata ràkka boobu moom da koy bañ a lim waxoon nañ ko ci ginnaaw bu dee jullik farata la ku bàyyi farata ràkka ba mu bàyyee farata da koy génn ci julleem bañ ko caa limaale indiwaat beneen kon bu dee farata noonu lay def waaye bu doon sunna du def noona day àggaleeg julleem rek balaa sëlmal ma sujjóot loolu ak wuute la gu am diggante juum ci farata ak juum ci sunna ci lu dul farata ba tey ku bàyyi woon li ñuy jàng ginnaaw faatiha mooy saar wi wala aaya yi ngay jàng ginnaaw faatiha ku ko bàyyi ci farata mbaa mu bàyyi ko ci sunna ku bàyyi béral fu ñu war a bérale jàng ci kaw la waroon a def moom mu jàng ci suuf wala safaan bi jàng ci suuf la waroon def mu jàng ci kaw ñett yooyu lu ci nit fàtte ba rukkoo ba noppi door koo fàttaliku bu doon farata day sujjóot balaa sëlmal bu dul farata nag dara waru dara waru ko bu fàtte ba bàyyi yooyu muy ñeent juróomeel bi mooy ku mataloon ak julleem ba noppi daldi juum jógaat du ci dolli beneen jógaat julli na ñaar ràkk ba noppite te julli gi ñaari ràkk la waroon doon waaye mu juum jógaat bu jóomee jógaat bu doon farata moom fu mu ko mën di fàttali ko rek daa day dëppaat toog sëlmal bu doon farata bu dul farata nag bu fekkee daa fàttali ko ne man lii may bëgg a def yokk la te ruko ruko defagul ruko kon day delluwaat toog sëlmal daal di sujjóot ñaari sujjóot bu fekkee dafa rukkoo ba noppi door koo fàttaliku nag kon moom day àggale ak julleem te bu noppee mu indi beneen ràkka waaye kon ñaar la julli woon tàmbulib ñetteel da koy àggale dolli ci beneen muy ñeent ci ci lu dul farat mu sëlmal euh, balaa sëlmal nag mu sujjóot ñaari sujjóot bu fekkee nag daa bàyyi jeneen farata judul faatiha faatiha waxoon nañ ko jeneen farata judul faatiha la bàyyi ba sëlmal ba mu yàgg mu door ko fàttaliku bu dee julli farata la woon kon moom day julliwaat waaye bu dee julli sunna la gudu judul farata dara nekku ci kon juróom-benn yooyu la ñu wute te sëñ bi and na ko ci aljawhar nafis bu génnee juróom-benn yooyu nag li ci des lépp ñoo ko bokkale wàllu juum ci julli jullik farata ak julli gutul farata ñoo ci yam ci lu génn juróom-benn yi sëñ Cheikh. waaw xam naa dafa bëgg ñu laaj leeral ba xam ndax day sujjóot wala du sujjóot daal. Hmm? xam naa day laaj ba xam ndax dañ ci sujjóot wala duñ ci sujjóot. day sujjóot. waaw muy ban ci. ci juum ci naafila ak jum ci jullik farata. waaw loolu naafila gi moo loolu laa doon wax ci détails yi juróom-benn détails yooyu am na fu ñu naan day sujjóot balaa sëlmal fii dara du ko war. dey day sëlmal ba noppi door a sujjóot mooy juróom-benn yooyu sëñ bi andi rek ci ci mi ngi aju ci faatiha la fàtte wala lii topp ci faatiha la fàtte wala béral béral la fàtte walla yaru fàtte wala dafa dolli ñetteelu ràkka wala dafa fàtte woon jeneen farata jurul faatiha lu ci nekk détail yooyu lii nag mënees koo jàpp ci wax nii rek loolu moom dañuy dañuy dellu ci téere ba door ko mën a jàpp ndax nekkul lu mën a lu nit mën a dégg nii rek daan ko jàpp. Mhm. Euh, jërëjëf sëriñ Cheikhouna euh, kii mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne da doon julli ci biir julli gi mu fàttaliku ne moom ba muy jàpp am na ab digg digg boo xam ne nii jotu ko raxas mu ne kon luy àtteeb julli googu. kii julli ci biir julli gi mu fàttaliku. Euh, ne am na lum raxasutoon bi muy bi muy jàpp am na lu ndox mi laalutoon daal boobaa bu fekkee du farata loola du farata day wëy rek àggalik julleem bu noppee nag dem defaat loola waaye du defaat du julliwaat bu fekkee farata la woon nag day àggale walla mu mu mu soppi ko na soppi sunna ni ñu ko waxee woon léegi mooy bu dee benn rakka la amoon da ci dolli benn muy ñaar mu sëlmal dem defaat loola ñëw nag julli julliwaat ndax farata bu matut julli gi du baax li dul farata nag bu matut itam julli gi baax waaye dana ko defar nag ngir julli ya ca toppaat sëñ Cheikh euh, kii moom ci alxuraan lay laaj mu ne laaya ji daal la bëgg ñu firil ko ko fi sunu borom di wax ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iyaah wa bilwalidayni ixsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waaw foofu da yàlla dafi wax ne dafa digle dafa digle nu di ko jaamu moom rekk dafa digle itam nuy rafetal jëme ci sunuy wayjur ni mu ko waxe fii waxee na ko ci beneen béréb wala yeneen béréb mu ne way wayjur yooyu nag ku ci doon mag ku ci doon mag nang ko gën a wormaal bu ko wax baat ba gën a néew bu koy metti bu koy naqari uf uf uf la la la la la la wax uf ñoom dañu daan wax lu mel ne uf baatu uf noonu bu dee uf xëy na noonu lu ñu wax loolu waaye xale dañ oh waaye wala yu mel noonu hmm? lu mel noonu wala meccitu meccitu mu wax la nga meccitu xeet yooyu yooyu mooy lu mel ne lu ndaw la ci nooy waxee ak moom ci noo xam ne neexu ko kon bu la teree la gën a gën a gën a gën a ndaw. kon la ko ëpp taxut ñuy wax daa jublu ne kon nang leen jox war ma ju mat sëkk sëkk sëkk bu leen jëme lenn luy nuru ñàkkee war ma lu mu tuut tuut lu mu nuru nuru lu tuut da ngay wax ak ñoom daal wax yéen wu rafet bay wax ak ñoom da ngay wax ak ñoom na mu gën a rafete moo xam ci wax la moo xam ci ay junju la na doon nam gën a rafete waaye buy waxeek ñoom ci wenn waxiin wu dara nekk ci loo xam ne dana nuru ak ñàkk a wekk dana nuru ak ñàkk war ma suñ Cheikh kii nee na kii julli ajuma lan la yéene ndax day yéene julli ajuma wala day yéene julli tisbaar ah ginnaaw ajuma la julli kii ajuma la yéene <laughs> nit kee li muy def rek la yéene li muy def la yéene yéene sax xam naa nit ñoo ci dugal seen bopp ba léegi yéen daanaka laajut jarut laaj ndax yéene mooy jublu jublu bisub àjjuma waxtu woowu rek àjjuma lay julli ku dem ba ca jumaa ja bisub àjjuma waxtu wa ñuy julli àjjuma kooku yéene naa julli àjjuma luñ koy waxloo ba mu naan tusbaar yooyu yëpp nga xam ne nag moom am na ngàntul julli ji àjjuma demul ca ñuy jullee àjjuma këram la toog di julli kooku lay julli bu jullee rek tusbaar tusbaar lay julli te bu fekkee doonul ku sañ kon ñeenti rakk julli ajjuma du nekk ñeent rakk moo tax laaj yooyu daanaka jëru ko nit ñee ci dugal seen bopp ndax jàpp ne dañoo war a wax dara amul lan lu ñu war a wax ci yéene yéene mooy ak jublu rek ak jublu nit ki ba mu jógee di dem di julli ji rek jublu na la muy julli jublu naa julli tusbaar mbaa mu jubloo julli ajjuma sëñ Cheikh ajjuma nag ku ne julli ajjuma rek kon ajjuma la lay jubloo julli hmm. kii mu ne lan mooy li ñuy tuddee taara ak ndax dagan na ci ab jullit mu am ñeenti soxna dolli ca ab taara ak nee na ndax atem njaam mi ngi am ba léegi wala déet waaw bu dee taara day bu dee lii taara dëgg-dëgg lii taara dëgg-dëgg moom nit mën na ko boole ak ñeenti soxna ndax moom du soxna taara du soxna ay soxna lañ mënta am lu ëpp ñeent taara nag du soxna taara nag dafa lëkkaloo ak njaam moo tax xëy na li mottali laaj bi ndax ak njaam am na léegi njaam nag amut léegi bu njaam amut léegi mooy taara amut léegi ndax taara mooy jaam bu jigéen jaam bu jigéen bu boroomam boroomam mooy ki ko moom jaam bu jigéen bu ki ko moom di séqal loola mooy firi taara mooy jaam bu jigéen bi nga xam ne ki ko moom day séq ak moom loola sañoon na ko yàlla mayoon nag ko am na yu mu ca tegoon nag waaye mayoon nag ko kon ba muy am moom booba sañoon sañoon nañ ko moo tax yàlla buy wax ci mbir yi soxna danaan soxna yi moom nii la war a deme ku xas am ñeenti soxna sañu ko weesu bu dee séqaat ak keneen kay xanaa day doon taara ndax taara moom du doon soxna nit ki da ko moom di sëq ak moom ginnaaw moom amatul nag kon taara amatul mooy njaam amatul njaam amatul kon taara amatul taara kenn du ko takk taara mooy ki moom ab jaamam di séq ak moom bi muy séq ak moom lay door tudd taara ci wolof boobaa nag takk amu fa du aw du soxna ba ñuy xool ay ñett ki ñeent ki yooyu bu jaam njaam amut nag taara amut te njaam amut fi mu ne nii kon taara amut fi mu ne nii mhm. euh, kii nee na dafa bokk ci carte gañe ca xaalis bu bari dem tabax ci kër mu ne ndax kër googu dagan na mu dëkk ci walla déet hmm, daganut kay carte alal ja ca jóge lewut lu lewut nag nit mënu cee wut lu dagan lu lewut nit mënu cee wut lu dagan kon mënu caa dëkkee noona mënu caa dëkkee noona xanaa mu jënd ko mu jëndoon ko ci lu dagan bi mu ko tabaxee lu daganul ba noppi nga xam ne moomu ko kon xanaa mu jënd ko nag bu ko jëndee nag njëg ga mu sarxe ko ndax loolu la waroon def mooy nit bu lu daganul lu lewut bu duggee ci loxoom da koo war a sarxe xëy na ak kër neexut a sarxe noonu te na mu tabax na ko soxla na ko kon na ko jënd ci lu dagan bu ko jëndee ci alal ju mu am ju lew loolee njëg njëg gën nag mooy la mu ko tabaxe woon rek ginnaaw xam na nu mu toll xam na li mu ko tabaxe nu mu toll na jël lu toll noonu ci ci njëg gu lew mu sarxe ko boo demee da ko jënd waaye moom sañu koo jëfandikoo noona ndax lam ko tabaxee lewut sëñ Cheikh kii nee na ndax dagan na ci imaam bu fekkee dafa rukkoo mu yëg ne am na kuy dugg ci julli gi mu yàggal rukkoo bi tuuti ngir kiy dugg ci mën a dem raka bi waaw loolu de dara nekku ci dara ko ci ilimaan ju dem ba jàng li mu bëgg a jàng ci alxuraan bay bëgg a rukkoo seen kuy dugg si mu yàggal rukkoo bi tuuti ngir may ko mu dab ko ci rukkoo bi loolu dara nekku ci sëñ Cheikh loolu moo nees na koo def euh, nee na koo xam ne dañ ko dañ ko raw ci julli gi ab rakka julli ñeent rakka la ñu rawe ko ci ab rakka mu ne kon boo xoolee day mel ni day toog ñetti toogaay mu ne kon ndax kon day sujud ba àdda salaam ndax day jàpp ne ñetti toogaay ak dolli la déedéet dañ ko sujjootloo ndax toogaay yooyu mu toog yëpp amu ci benn boo xam ne bu mu yokk la te yokk mooy tax a sujjoot te yokkut yokkut nit ki bi mu toppee ci ilimaan dañ ko sant mu topp ilimaan ci lu ilimaan def mu def ko kon lim defandoog ilimaan dañ ko ko sant bi muy mottali itam li bokk ci mottali gi itam dañ ko ko sant kon lim def lépp yokk amu ci luñ ko sant rek la def jotaay yëpp yuñ ko sant la kon amut ci benn jotaay bopp da ko yokk ci julli gi kon nag euh, sujjóot waru ko ndax yokkul dara jotaay yi ëpp na jotaay yi yiñ daan def ci julli waaye nag moom jotaay yëpp dañ ko ko sant ndax ñaar yee daa fekk mu war a topp ilimaan mu topp ko ca bu mujj bi itam daa bokk ci li mu war a mottali ci julleem mu boole ko ci kon yokkul dara bay sujjóot sëñ Cheikh euh, laaj bi ci topp nee na waa jii moom dani dafa gis sëriñ Touba ci ay nelaw mu jaayanteeg moom mu ne kon ndax loolu dana doy kon walis muy jaayanteeg euh, sëriñ buy dund ay nelaw moom duñ ci tabax dara ay nelaw maam gént gént duñ ci tabax dara gént deesu ci tabax dara xanaa xëy na xam-xam nii rek xam-xam ndax yàlla dana xam dana xamal nit ci gént xam-xam ma ak lu xam-xamu nii xam-xamu diine sax kenn du ko tabax ci gént waaye xam dara nii rek yàlla mën naa xamal nit xëy na lu luy bëgg xew loolu mën a caa sukkandiku waaye nag ak dundam moom amul lenn lu muy tabax di ko tabax ci gént kon bu dee bëgg na sëriñ moom na seeti na seeti kum jaayanteel waaye gént duñ ci amee ab sëriñ sañ Cheikh kii nee na lan mooy àtteeb koo xam ne dafa takk jigéen joo xam ne ci ahlul kitaab la bokk fekk nag dafa ëmb ñu ne ko kooku kat mënoo ko takk takkub sharia faw rek nga takk ko ñoom ni ñu baaxoo di takk ab sëy seen aada nee na mu dem fase ko yàq ëmb bi ndax ginnaaw bi dina ko mën a takk wala déet ginnaaw bu mu ko fasee ñu yàq ëmb bi ndax dana ko mën a takkaat wala déet. Hmm, kii de wax nañ ko loo xam ne demoot noonu euh, mën na koo takk ci yoonu lislaam waaye mën ngi koo takkee ci seenu yoon loolu lool amut loolu amut lislaam moom jëmmi takk ci bopp boppam nag la lay wax ne booy takk booy takk doo takk ku tollu diggante rek loo takk ku tollub diggante moo xam foo ko mën di takkeek noo ko mën di takke kon ku tollub diggante boo nee danga koo takk rek takk ga wérut moo xam da nga ne da koo takkee ci lislaam wala da koo takkee neneen di mi takk coob nag moo wérut takk ku tollub diggante wérut wérut benn ñaareel ba bu dee nee na nee na foofa itam bu ne da ko fase fase itam amul foofa ndax ab sëy amu fa ba ñuy fase fase ci ab sëy lañuy ñuy fase waaye takk gu wérut duñ fa wax fase waaye taqale la ñuy wax dañu leen di taqale ndax sëy amu fa kon du fase waaye taqale lay doon mooy sëy dafa newutoon mu ne daa yàq ëmb ba loolu itam doon leneen loo xam dañ ko tere moom it yàqub ëmb de loolu ci jublu yàqub ëmb dañ koy tere dañ koy tere kii lu mel nii fiñ koy mayee rek mooy foo xam ne buñ ko defut bakkanu jigéen ji ëmb xaj na ci mooy mën na caa ñàkk bakkanam foofu rek lañuy ñuy maye yàqub ëmb yooyu yëpp kon ci laaj bi yooyu yëpp a ngi ci la ca mujj nag mooy mu mu mu takkaat ko takkaat geet munta nekk ci ngër bu fekkee jot naa séq ak moom ginnaaw bi mooy kon daa bëgg a takk jigéen ju dul jullit fekk mu tollub diggante ku xas tollub diggante kenn sañu koo takk bu ko takkee séq ak moom takk ga moom wérut lu mën di xew waaye bu xasee séq ak moom it bu ñu leen tàqalee duñ mën a séyati mukk ci ngër ci ngër duñ mën a séyati mukk bu dee nii mu waxee nii la demee moom mooy ak takk gu wér amu fa kon passé itam amu fa ndax sëy amu fa te bu fekkee seq nañ itam du ko du duñ ko ko mën a mayaat mukk buñ seqaatul nag ci ginnaaw bi kon moom danañ ko ko danañ ko ko mën a mayaat bu fekkee mucc na ba noppi buñ leen teg taqale bu demee ba mucc danañ ko ko may bu fekkee jotuñoo seq dara sëñ Cheikh. Euh, jërëjëf sëriñ bi kon xam naa ñu bàyyi nga tàggoo rek. waa tàggoo gi de xanaa di sant rek mbooloo mi ci ànd gi nu ànd ak noonu jotaay bi ak teewlu gi nu koy teewlu di leen jéggulu itam di ñaan yàlla nangul nu sunu jëf yi ñu def ci koor gi li ci baax lépp jéggal nu itam li ci doon ay rëcc rëcc yépp te lim ci digge ci aw yiw lépp itam mu defal nu ko wa salaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu. jërëjëf sëriñ naa ñu ngi leen di sant bu baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi na ko ci laaj yi fi rotoon ñu ngi ñaan sunu borom mu dëgëral la te kàttanal la te mottali say yéene ak say naal ci liggéeyal lislaam ak liggéeyal yoon wi kon ñu ngi sant bu baax ñi doon topp jataay bi ci biir jumaa ji ak ci bitti jumaa ji di ñaan sunu borom mu def ñu dégg ak topp. di fàttali na suba incha allah ñi ngi fas yéene jël ab bind bu jëm ci wàllu labatu soxna ak ponk yi nga xam moom la sëy am moom la ñu war a waxtaani suba sëriñ Mbàkke Abdourahman moom mboo koy taxawee ñu ngi koy fàttali mbokk yëpp niki noonu ba tey it képp koo xam ne am na laaj bu mu bëgg indi ci fatawa mën na ko jaare ci numéro bi 78 686 28 28 78 686 28 28 wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. والمدد